ok alhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ñu ngi sant suñu boroom subhanahu wa ta'ala ci lim ñu déppalee ñu ñëw fii ci ab néegam di fas yéene jël benn bind ci lu aju ci suñu wàllu diine ñu koy sukkandikoo ci téere bi ñuy tàpp di risaala bu ibnu abi zayd alxayrawaani rahimahullah muy suñu dars bi jëkk ci at mu yees mi nga xam ne mooy atum 1442 mi ngi noonu su ko defee tey jii nekk ca la nga xam ne mooy ñeenti fan mu tombeeg le 23 août ci 2020 su dee ne yow da nga yor li nga xam ne mooy mool bu xonq bi traduction ba yaa ngi ci page 81. fi suñu borom téere bi di waxee ni wala yubaau juzaafun bi makiil mi ngi noonu moo dee ci huitième ligne bi la bu dee da nga yor samru daani bi yaa ngi page cinq cent treize ci ligne bu njëkk ba rek ca kaw page cinq cent treize ci ligne bu njëkk ba wala yubaau juzaafun bi makiilin min sinfihi kon mbokk li ñuy jël mooy li ñuy tuddee fiq moo ñuy jàngal suñu borom yàlla wax ci téeréem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ko ci sunnaam borom xam-xam yi nag ñoo ñu koy jël diñu ko tënkal tënk boo xam ni dana mën a méngale loolu ba yow ma ca doon gis ay contradiction loolu mën laa tegtal su ko defee bu dee ne yow gis nga bind bi day wax ni wala yubaau juzaafun bi makiilin min sinfihi kenn du jaay ab jal nga jëndee ko loo xam ne nii dañ koo nat fekk ni la nga koy jënde mook la ngay nar a jënd seen melokaan benn la wala juzaafun bi juzaafin min sinfihi ab jalit kenn du ko jële beneen jal jënde beneen jal ci loo xam ne melokaan ba benn la illa an yatabayyana alfadlu baynahuma lu dul ne dafa leer naññ ngëneel ba seen diggante in kaana mimma yajuuzu tafaadulu fil jins su nekkee ca loo xam ne dana dagan ñu gën a lente ko ca melokaan ba ay fil jinsil waahid minhu ci melokaan ba ci benn ci ñoom mi ngi noonu mbokk kon fii day wax ne yow mi ñëwoon fekk masalan waa ji am benn jal dugub ndax jalu dugub boobu am nga droit léegi yow ne ko kaay ma jox la sama deux cent kilos yi te yow nga jox ma jal bi ñu ne déedéet loolu du mën a nekk maadaama lañ koy jënde xam nañ nu mu toll kenn du ko jënde ci loo xam ne kenn xamut nu mu toll loolu muy benn bi beneen bi it mooy kii amoon jalub dugubam mënu koo jënde beneen jalub dugub beneen maadaama melokaan yi benn lañu am maa nag bu dee ne dafa nekk ci loo xam ne terewuñu ñu jëflante ca ci ak gënalante loolu yi mën naa nekk masalan lu mel ni fruits yeeg ak légumes yeeg yu demee noonu waa ji amoon jalub mangoom mën na ko jënde jalub mango beneen boo xamee ni nii mat na ko deux fois ndax mango yi bokkuñu loolu it lañuy wax ci lépp loo xam ne terewuñu ñu ëpp leen ca ca diggante ba heure boo xam ne dañ koy wecceeku te yow mi nga xam ne yaa toppoon dars yi nga xam ne jiitu woon na yii melokaan yu yëpp waxoon nañu la ko te mooy bépp ñam boo xam ne dañ koy dundee ca di ko denc heure buñ koy jëflante dañ koo war a yemele waaye kenn du ko génne leen ci seen diggante loolu kon mooy bind bi mu jëkk a jàngale foofu bu dee da ngay jël beneen bind mu ne wala ba'sa bi bay'i shay'il ghaib ala sifa ولا ينقد فيه بشرط إلا أن, يقر إلا أن يقرب مكانه أو يكون مما يؤمن تغيره من دار أو في المسخ وكن مني ولا بأس درنكل ببيع الشيء الغائب تنجاي لو خمني نكو في على صفة ñu jaayee ko ci wax melokaan exact ba mu yor wala yunqadu fiihi bi chart kenn du ca fay prix ba nag bu dee dañ koo charto illa an yaqruba makaanuhu xanaa lu dul dafa jege place bañ koy war a jëli aw yakuna mimma yumanu taxayyuruhu wala mu nekk loo xam ne am nañ kóolute ne du soppeeku min daarin ci kër lay doon aw ardin wala suuf aw shajarin wala ay garab fa yajuuzu naqdu fiihi su boobaa dana dagan ñu fay avant ñuy gis mbir ma mi ngi noonu mbokk kon day wax ni nit ki mën ngaa jaay dara ci melokaan mi ngi noonu mën ngaa jaay dara ci melokaan looli na doon ah man kat am naa fa cent kilo dugub dugub bu mele nangam ah man day am naa am xar moo xam ni nii la mel nii la mel ay atam temps la wala dafa jëm ci ay kër wala lu mu mën a doon ala kulli xaal bu dee ne yow wax nga melokaan bi waa ji jëndanteeg yow melokaan ba day ko njaay mi mën nañ koo jëflante bu dee ne da ngaa chartoo ne ko danga may fay avant ngay gis mbir mi dañ naan loolu du dagan kon bu dee waa ji moom moo coobarewu rek jël xaalis bi jox la su boobaa dañuy gis bu dee ñëw nañu xool la ñu waxante woon dara changé wu ca njaay moomu day doon njaay moo xam ne mu sax la moo tax mu ne waruñoo jiital fay gi xanaa lu dul place bi daa jege lool wala boog mu nekk loo xam ne du soppeeku masalan tey jii waa ji nga ne koon man kat am na benn kër jam ñaajo mi ngi nekk 10 sur 15 waa ji xam na luy jam ñaajo xam na lan mooy 10 sur 15 donte ne gisul kër gi ngeen jaayante ci loolu ndax xam nañ ni 10 sur 15 moom du wàññeeku ñu ngi noonu ak lu mel ne ay garab ak yu demee noonu. ala kulli xaal li muy jàngale fii rek mooy dagan ne jullit ñi jaayante ci melokaan waa ji ñëw na dama bëggoon portable ah man day am naa benn portable boo xam ni marque tel la nii la mel naa la mel ngeen waxaale ba fu ngeen juboo su ko defee nga dem indi jox ko mu fay la looluy cosaan su coobare woo jox lay xaalis bi nga dem indil ko loolee bu dee charte woo ko ak moom l'islam du doon lu bañ loolu fekk ne loolu yow yaa ka yaa ka moom melal ko ko jaay ko ko bu dee dañuy jël beneen bind mu ne wal uxdatu jaizatun fi raqiq in ishtaratat in ishtaritat mu ne la nga xam ne mooy ab délai boo xam ne dañ koy joxonte ci ñu xool garantie ndax mbir mi baax na baaxul mooy al uhda la ngeen diggante ci ab diir bu ngeen di xool ndax lim la jaay baax na ak baaxul mu ne loolu day dana dagan ci jaam bu ñuy jaay su dee dañ koo charto aw kaanat jaariyatan bi baladin wala mu nekk loo xam ne dañ koo aadowoo ci dëkk ba fa uhdatu thalaasi damaanun fiiha min albaa'i min kulli shay'in su dee déleb ñetti fan loolu day garanti la boo xamee ne nii aji jaay ji da koy gàddu ci lum mën a doon wa uhdatu sana bu dee diirub at nag min aljunuuni waljuzaami walbaras des na ko seet ci kuy teqali ko xelam wala koo xamee ne nii genre ngaana la gu yàq ay cëram wala la nga xam ne mooy ngaana ci boppam bi yàq ab der yii yépp da ngay gis ne des na ko seet ci loolu mbokk kon day wax fii ci ne waa ji nga xam ne day jaay matériel ba muy jaay su boobaa am ngeen droit signente ah yaa ma jox portable bi kat waaye dana ko essayer ñetti fan su dee ne gisuma ci benn ayib suma portable la su ma ci gisee ayib nag dinaa la ko delloo moo tax mu ne loolu dana dagan min kulli shay'in ci lépp lu mu mën a doon ñu ut ca benn délai boo xam ne trois jours lay doon loolu nag xëy na dana am ci yow xam ne nii masalan su doon te nii lu mel ne ay oto mën nañ faa bañ a yegg ca loolu it lu mën a nekk la wala sax luy war a nekk la mooy waa ji ñëw na oto baa ngi nii xamu ci dara ñu bari dañuy indi seeni mécanicien waaye jaadu woon na waa ji ñu jox ko oto bi mu essayé ko ci diir boo xamee ne nii diir bu ñuy nangu la dawal ko ci loo xamee ne nii dana ci mën a génne vitesse yépp ba xam loo xamee ne nii xam ne dafa oto bi saa ci benn waay bu yàggul dara jënd ab oto fay ko mais daanaka ba mu koy dawal di yegg këram la commencé gis ay problème yu dul jeex loolu nag mbokk nekkul lu jaadu waram oto bi war naa jël oto bi essayé ko ci diir boo xam ne dañ koy comprendre donte na suñ jamono tey nag na nekk ci koo xam ne da ngeen xamante bu baax comme nag inspecteur Samb waaw yaakaar naa inspecteur Samb mi ne bii na ñoom seen benn tubaab mu ñëw di jaay otoom benn waay jóge fële ne ah ma essayé mu ne ko amul problème jëlal essayé waa ji taal oto bi ba sànq ci suuf bi ca ngoon léegi nag ñoom bu ñu ko daan tooñ bu ñuy ne ko xam nga monsieur nan ah ana oto bi mu ne mais je l'attends toujours man koy xaar ba ma léegi noonu la waa ji yóbbu oto ba sànq suuf bi ca ngoon waaye yàlla ku li xaal bu dee koo xam ne xamante ni garanti lañ dara nekkul mu dem yenn ndoog oto bi dawal ko ba xam exactement la ci nekk yeneen marchandise yi nga xam ne it ay yëpp mën na caa làq bu ñu xamul loole da ngay gis ne islam dina daganal loolu mu des nag problème mu jaam ba jaam ji am nga xam ni da ci am ñoo xam ne seeni ayib balaa feeñ day yàgg wala mën nañ koo nëbb rawatina koo xam ne day am période bu muy teqali ko xelam am na ñoo xam ne nii jamonoy nawet dañuy teqale ko seen xel ñii jamonoy lëndëm dañuy teqale ko seen xel mu ne su boobaa moom mën nañ ci jël délai un an loolu lañ cey tënkee rek mooy marchandise bu mu mën a doon ñu koy jëflante te ragal ne am na lu ci mën a làqu lu ñu xamul mënees na defante benn délai boo xamee ne nii dañ koy tënk avant ñu yegg ci délai ba lépp loo xam ne feeñ na ci waa ji jëndoon am na droit delloosi ko ñu jox ko xaalisam wala boog bu passé délai ba nag ñu xam naa délai ba passé na mi ngi noonu bu ñuy jël beneen bind mu ne bu ñuy jël beneen bind mu ne wala ba'sa bi salami dara nekkul ci salam ca mooy commandé commande fil urudi ca la nga xam ne mooy marchandise ya wa raqiqi ak jaamiya wal xayawaan ak jurga ak ak bàyyima ya wa taami ak la nga xamee ne nii moom mooy ñam ya wal idaam ak la nga xam ne dañ koy soose muy na doon lem yaag la nga xam ne moom mooy diw yaag graisse yaag yu deme noonu yooyu yépp bi sifatin maalum mën nañ koo commandé ci melokaan bu ñu xam wa ajalin maalum ak dig boo xam ne dañ koo xam wa yu ajjalu rasul maal rasul maal su ko defee ñu jiital alal ba ñuy fay aw yu axiruhu ila misli yawmayn wala ñu yeexe ko ci loo xam ne ci ñaari fan lay toll aw salaasa wala ñetti fan wa in kaana bi chart doonte ne ni dafay nekk ci loo xam ne ni chart la mbokk lii day wax ci li ñuy tuddee assalam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy ñëw madina fekkoon na waa madina di jëf leen teeg waa siri ci la nga xam ne ni ay mbay la ci ñaari at wala ñetti at koo xam ne ni da ngeen di jëflante nga fay ko léegi yow boo góobee da nga ma jox fukki saaku dugub bu deewee ne fukki saaku dugub ngeen su ñeente ci loolu loolee bi yonent bi alayhi salaam ñëwee da leen koo saxalal mu ne képp koo xam ne day def loolu na ko defee bi sifatin maaluma wa ajlin maaluma mi ngi noonu wa kaylin maaluma mooy képp koo xam ne yaa ngi def loolu na ngeen leeral bu baax melokaanu bi ngeen koy defee mooy pepp la ñu leeral ko blé laam mboq laam saañe laam lu mel ne doon loolee dafa jëm ci ay jur ay xar la ñaata façon xar la ak ban melokaanu xar la ay ginaar na ko noonu lépp loo xamee ne nii doomu aadama am na droit jaayante ko am nañ droit def ca la nga xam ni moom mooy assalam loolu am na lu ñuy nar a jàng ci kanam mooy jaay loo xam ne amoo ko bu dee ci wàllu salam bi loolu bokku ca mooy yow waa ji xam nga ni li ngay jënd ci moom moom amu ko waaye nag da nga am yaqin ci ne dat bi ngeen waxante moom bu jotee dana ko am mi ngi noonu dat bi ngeen waxante moom bu jotee dana ko am loolu mi ngi noonu mooy dem nañu masalan tey jii mbay mi jaar na yoon ñi ngi nekk ci nawet yi am nañ ci yaakaar bu baax nga demoon Saalum wala Fuuta wala nangam gis koo xam ne borom tool la ngeen siñante mu jënd ci moom temps ci gerte temps ci dugub nga xam ne da ngeen di siñante ah suñ demee day ba le 31 octobre nga xam ne moom nawet jeex na tàkk da nga ma indil temps ngeen siñante ci loolu mu ne nag loolee fokk ñu joxe xaalis ba mu jiitu fokk ñu joxe xaalis ba mu jiitu gannaaw ba mënees naa yéexee xaalis ba ci jamono bi ñuy signé contrat ba ba yóbbu ko gannaaw ñaari fan ñetti fan waaye buñ ko bëggee passé loolu loolee day dugg ci beneen mbir bu ñu araamal te mooy jaay bor ci bor masalan yow fin du mois naa la jox cent mille yow nag boo góobee nga indil ma temps de dugub déjà moom yoroon na la cent mille yoo xam ne fin du mois la la koy jox muy bor yow nga yoroon ko bor muy borog bor gis ngeen kon fokk délai bi mu warul passé ñetti fan nga jox ko xaalisam moom mu yoroon la la nga xam ne dana la koy yoroon boo xoolee sa téere ñu jël beneen bind mu ne wa ajalu salami dig ba nga xam ne ca la ñuy war a joxe la ñuy def jënd ahabu ilayna an yakuna xamsata achara yowman bu dee lañ gën a bëgg ci mazhab malik mooy du yiis fukki fan ak juróom aw ala an yuqbada bi baladin axar wala bokk ñu koy jële ci dëkk beneen wa in kaanat masafatuhu yowmayni aw salaasa doonte ne diggante ba ak fañ siñentee contrat ba doxu ñaari fan la wala ñetti fan wa man aslama koo xam ne nag dafa jëflante ci njaay mu ñuy tey la joxe njëgam ila salaasati ayyaam ci loo xam ne ci ñetti fan rek la yem yaqbiduhu bi baladi bi baladin aslama fiihi mu koy jëlee ci dëkk ba mu defee sal loolee njaayante boobu faqad ajaazahu gayru waahid min al ulama daganal na ko lu bokkul ak benn ci borom xam-xam yi wa karihahu axaruun doonte ne bañ na ko ñeneen ñu dul ñoom mi ngi noonu mbokk dafa am lu ñuy tuddee njaay am lu ñuy tuddee salam salam wax nañ la mooy waa ji lim lay jaay du ko yorugut waaye nag dana ko am ci deret tel ñu ne li koy uutale ak njaay direct mooy délai bi ngeen di signantee contrat bi lu mu néew néew na mat 15 jours lu mu néew néew na mat 15 jours mu ne nag bu dee ne délai la boo xam ne da ngeen ko def ci ñetti fan rek waa ji commandé ko li nga ko commandé dans 3 jours mu jox la ko am na ñu ne loolu ba tey des na ko tudde salam mënees na koo def doonte ne def ne am na ñeneen i borom xam-xam yoo xam ne nii dañ koo dañ koo tere mi ngi noonu dañ koo tere bu dee ne la ñuy tuddee asalamu fil xaal te mooy njaay moo xamee ne nii njaay la bu ñuy jëflante nga war koo indi léegi léegi ca waa ji amu ko njaayante ba mu lislaam du ko nangu waa ji amul dara ci lim lay nar a jaay ngeen jëflante nga jox ko xaalis léegi nag moom mu dara dem nag wuti nag lam lay jaay war koo indi léegi islam du nangu loolu amma bu dee délai bi diggante bi def nañ ko délai de trois jours mu ne am nañu ko nangu doonte ne ne ñoom la ñu gën a taamu mooy diggante délai bi fokk mu nekk quinze jours ñu doog koo tuddee la nga xam ne mooy mooy salam boobu ala kulli xaal mbokk jot nañ ci jël ay jënd bala nit ñi am xëy na laaj yu xaw a joxasoo seen bopp ñu xool ndax amu ci lu ñuy laaj bala ñoo continuer ci yeneen bind yi ci gannaaw insha allah waaw bismillah naam waaw waaw xam naa loolu day bokk ci question générale yi affaire du courtier loolu moom ci question générale yi incha allah bu ñu paree dars bi daan ci wax mais li ñu doon jàng nii léegi laa wax waaw bisimilah waaw waaw waaw waaw wala kulli xaal day wax ne ki nga xam ne daf la commande mën na def un mois deux ou trois mois waaye moom daf la doon li nga xam ne daf la avance su ñëwee loolee mu doog a doon lu muy complété ala kulli xaal la nga xamee ni nii moo nekkoon cosaanu salam mooy waa ji dafa jënd dafa jënd marchandise boo xamee ne nii moom boo ñëwee marchandise am la ne da koo jënd bokkul ak lu ñuy leb looloo tax mu ne délai bi ñuy signantee contrat commandé bi fa lañu war a fayee lu mu yàgg yàgg boog ñu teg ci deux ou trois jours mais bu dee ne dafa dem loo xamee ni ni ab bor lay doon te moom it mu nekk bor day nekk borob bor ba nga xamee ne loolu bu dee loolu rekk ci nar a am nañu bàyyi ba marchandise mi ñëw bu ko defee ngeen jaayante mais commande moom heure buy am day fekk ne waa ji dafay joxe xaalis yow nga dem indi ci délai boo xam ne dañ koo xam loolu la ñu tudde salam leneen lu dul loolu am jaayante lay doon te loolu ci yeneen charte lay dugg wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah waaw naam wa loolu la ñuy wax jaay ci melokaan waa jama nga fóota nga ne dama fi am benn xar xar mi photo xar mi yónnee la ko bi nga koy gisee mu doy la loole mënees na caa jaayante mënees na caa jaayante ndax yow li ngay jaay xam nga melokaan bi nu mu mën a nu mu doone bépp njaay boo xam ne melal nañ la ko loolee nga d'accord ci biñ ko indee nañ la ko melaloon noonu la mel njaay moomee day doon njaay mu dog amma bu dee bañ ko indee gis nga ci leneen loo xam ne bokkul ak nañ la ko waxe woon su boobaa yaay tànn bu la neexee jël ko bu la neexee rejeté ko te bu boobaa it waajo moo tooñ ndax moo la waxul dëgg-dëgg melokaanu lam lay jaay mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala aalam naam naam bismillah naam waa ji nga xam ne dafa nekk li ñuy wax nuurumaan yi ci marché yi nga ñëw mu ne lu loo bëgg ngeen ngeen waxaale ba juboo loolee moom bu dee du marchandise bu mu moom da koy jëli ca magasin ba rek amul droit jël xaalisu waa ji amul droit jëflante moom jël xaalisu waa ji amma bu ñuy waxtaan yi ba juboo man kat maa ngi bëgg télévision tel marque tel nangam tel mu ne ah waaw kooku day mën naa lu ko jaay ci tel ngeen waxaale ba déggoo ci prix moom mu dem génne télévision bi ñëw jox la télévision nga fay ko loolee moom am njaay lay doon amma li l'islam di bañ rek mooy jaay li nga amul te mooy jël xaalisub jàmbur ba pare nag dem di wëri la nga xam ne mooy matériel bi nga ko nar a jaay islam moom du nangu loolu nga jaay loo xam ne déjà bénéfice bi dugg na sa poche te yow amagoo li nga koy jaay mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam waaw waaw bismillah waaw waaw loolu day fekk ne borom place bi moo ko jox ndigal ci loolu mooy borom place bi moom da cee gis intérêt loolu ña nga xam ne dañuy ñëw di jaay da leen koy jox prix en gros masalan télévision bi tey bu doon jar deux cent mille mu ko jox client bi directement deux cent mille da ko koy jaay moom da ko koy defal en général ay cent soixante quinze mille su ko defee waa ji moom ci boppam bu ko jaayee am ci dara li nga xam ne daal mooy li ñu ciy tere comme ni ñu la ko waxee mooy képp koy jaayanteel te la nga koy jaay da nga koo jël teg ci loxoom moom mu jël xaalis teg sa loxo loolee dañuy tudde ne moom am njaay la la nga xamee ne nii mooy borom magasin ba la jox ndigal ci loolu kookee dañoo gis ni moom mbir la boo xam ne da nga ko koy jaaye loolu mu lebal la ko waaye ku ne xam ne ne ni kii xamantuwul ak borom magasin miinantuwul ak borom magasin du amul droit dem ci magasin jàmbur rek indi client naan ko kaay ma jaay la lii loolu xel nanguwu ko loolu daal kon dañuy gis ne kookee dafay jëflanteeg borom magasin bi maadaama la muy jaay jëlul xaalisu jàmbur waaye dañoo ñëw marchandise baa ngi nii waa ji génn xaalis teg ci loxoom mu génn marchandise teg ci loxoom su boobaa gisuñu ci lenn loo xam ne day doon lu xaraam wallahu subhanahu wa taala aalam naam bismillah xaw naa dese comprendre li nga wax waaw waaw ala kulli xaal bokk na ci liñ ma doon a jàng ca sunu bind yi passé ay jën ci ndox loolu kenn du ko jëndante waa ji nga siñenteeg moom na ko bés bu ne dinaa servir camion bi feesal camion bi te wóoru la ndax da nga jàppam doo jàpp loolu kenn du jëflante ci loolu kenn du jëflante ci cadre boobee la nga xamee ne muy ay wàllu napp bala ñu koo jëflante waa ji da koy génne ñu jëflante ko su ko defee loolu dafa war a nekk contrat journalier chaque jour ak lañ indi waaye waruñu siñante rek ne chaque jour da nga duy camion bi déedéet ndax mën na am mën na ñàkk a am mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam waaw bismillah naam naam dafa wa waaw waaw waaw question question waaw incha allah question boobu dina ñëw ci bind bi ñuy jër nii léegi ci kanam incha allah waaw waaw ala kulli xaal bu dee ne kon ñu jël beneen bind bu bees mu ne wala yajuuzu an yakuna rasul maali min jinsi ma uslima fiihi du doon lu dagan la ñuy fayee nekk melokaanu la nga xamee ne ni moom la ñu bëgg ñu indil ñu ko ca commande ba musalante ji waa ji ñëwoon dafa bëgg ab ceeb moom mu ñëw jox waa ji ceeb ne ko nag léegi bis boo góobee sa ceeb nga jaay ma ci lu mel noonu ci ceeb mu ne déedéet loolu moom kenn du ko def maadaama la ngay joxe ak la ngay jël benn la mu ne wala yuslamu shay'un fi jinsihi kenn du jëflante ci bor commande ci loo xam ne nii benn melokaan la aw fi ma yaqrubu minhu wala loo xam ne daa jege yoo ak moom illa an yuqridahu shay'an lu dul nag nga lebal ko dara fii mislihi ci lu mel noonu sifatan wa miqdaaran ci melokaan ak ci kem wa naf'u lil mutasallif fekk ne njëriñ ba ma ngay dellu ca ka nga xam ne mooy lépp bor ba mi ngi noonu ba ko kon day wax fii rek ne waa ji ñu woon di commandé pepp la dafa doon ay jur la ay yére la ay lu mën a doon fokk nga am leneen lu bokkul ak la ngay commandé joxe ko comme njëkk mais bu dee la ngay joxe comme njëkk moog lañ la nar a jox ëllëg benn la loolee kenn du ko nangu ci loolu nga xam ne mooy commande yooyu mu ne nag am na leneen nag lu ko mën a remplacer muy wàllu bor wàllu bor waa ji am nga droit lebal ko fukki xar ah bu at mi jeexee mu fay la fukki xar fukki saaku dugub bu góobee jox la fukki saaku dugub loolu day dugg ci ba ci buntu leblente leblente boo xam ne nii nee na moo tax mu ne ka cay jëriñoo mooy ka nga xam ne mooy kay leb waaye du kay leble nga xam ngeen ni islam lépp lu aju ci wàllu lépp intérêt ba mi ngi am ci ki ñuy lebal ndax moom moo ñàkk ñëw ci waa ji waa ji lebal ko mu mën a faj soxlaam ëllëg mu mën a delloo lañ ko lebaloon mi ngi noonu amma waa ji leble moom bor doo ci am njëriñ yonente bi alayhi salaam dane kullu qardin jara nafan fa huwa riba heure boo leblee nit te li nga ko lebal am nga ci intérêt loolu di dugg ci riba la nga ko lebal moom loolu rek war a dellu si intérêt ba nga cee am mooy ngërëmal yàlla ay pay ngay bawoo ci yàlla loolu moo tax mu ni wàllu bor moom ka cay jëriñu mooy kay leb nga xam ne moom dana mën a faj yi soxlaam bés bu jekkee ñëw fay mais yow mi nga xam ne day da ngay leble doo lebal nit mukk fekk ne bor bi daf lay jural intérêt loolu la wax ca wàllu googee suñu jël beneen bind mu ni wala yujuzu daynun bi dayn du dagan ñu jaayante bor ñu jaaye ko beneen bor wa taxiru rasul maal bi shartin du daganit ñu yéexee lii di bopp alal dañuy faye bu dee charte la ila mahalli salam ñu war koo joxe te fa ñuy joxe marchandise ma aw ma baada min al uqdati min zalik wala ca gannaaw loolu gannaaw ba ñu fasee mbir ma wala yujuz fasxu daynin fi daynin du dagan ñu firi benn bor teggee ko ci teggee ko beneen bor wa huwa an yakuna laka shay'un fi zimmatihi te mooy mu ñeel la benn mbir ci kull rek waaja fa taftaxuhu fi cheyin axar nga firee ko dindee ko beneen mbir boo xam ni la tataajjaluhu doo ko joxe nii léegi mi ngi noonu mbokk day tere mooy bor ci bor jaaye bor ci bor loolee dana nekk ci ay façon mooy waa ji masalan ñëw na nga lebal ko la nga xamee ne nii tey jii moom mooy benn valeur boo xamee ne nii cent mille francs la mi ngi la ko war a jox ci un mois bi nga xamee ne nii day ñëw yow ci gannaaw loolee mu nga wëlbati ko waat lebaat ko ko ci loo xam ne ci quinze jours yi lay ñëw ci leneen loo xam ne nii dafay doon lu wuute su ko defee moom da laa yoral bor yow nga yoral ko bor waaye da ngay gis ne ñaari bor yi yow da nga ci am intérêt wala wala mu nekk ci loo xam ne nii day nekk ci diggante ñaari nit mooy waa ji daf laa yoral benn bor masalan kii yoral na la benn fukki saaku ceeb kee moom yoral la ñaari xar nga wëlbati ko waat ne ko hey léegi yow yoral nga ma fukki saaku ceeb faye naa la ñaari xar yéeme kee yoral su ko defee yow kee bor la la yoral nga faye ko bor bi te benn xaalis kenn jëlu ko ci seen biir loolu it lay wax même bu doon te ne ni jaayantiwu leen bor bi waaye da nga firi bor bi parce que waa ji yoral na la moom moom ci boppam moo la yoral ceeb bi yow nga yoral ko ay yére te yére yooyee da ngay gis ne ku nekk ci yéen lam war a fay moroomam du léegi nga ne ko hey jëlal yoral nga ma bor yoral naa la bor sa bor ba bi tegg naa ko sama bor bi ala kulli xaal ci gàttal mooy lépp loo xamee ñu ne ab bor la dañ ko war a fayante nañ ko leblente waaye beneen bor boo xam ne bor la comme bor duñ ko jël utiliser ko fayee ko boru keneen loolee bari na ci lu ñuy tuddee ay ay dette croisée ñu koy wax ci suñu jëfandiku tey mënu mën na jur ay intérêt waaye bu dee lislaam moom du gis noonu ndax lu ci bëri foo gis léeg-léeg ay bor croisée da ngay gis dana am kenn koo xam ne dafa loru ci loolu wallahu subhanahu wa taala alam ah waaw waaw rakkati ko waaw waaw mais booba day fekk ne day doon mbir moo xamee ni nii benn mbir la ma bu di dafa wuute l'islam du nangu loolu mi ngi noonu l'islam du nangu loolu waa ji nga xam ne da la yoral cent mille francs ah yoral nga ko cent mille francs kooku yéen da ngay gis ne yéen kenn lorul sa morom waaye bu di def laa yoral xaalis nga yoral ko yére mu yoral la pepp nga yoral ko nangam loolee islam du nangoo ñu jël bor bi changé ko beneen bor bi bu dee ne da ngay jël beneen bind mu ne wala yajuusu bay'un ma laysa indak du dagan ngay jaay loo xam ne nekkul ci yow ala an la ala an la yakuna alayka xaalan ca bu boobaa nga fasanteg waa ji ne léegi léegi nga ko koy jox loolu islam du nangu loolu mooy liñ doon junj sànq islam nangu na salam lan mooy salam waa ji xam nga ne amul marchandise mi waaye wóor na la mën na ko commandé wala boog mën na ko am ci mbayam ci diir boo xamee ni nii bu dee liñ jot a jàng ci téere bi lu mu néew néew dana war a ban ñetti fan dangay gis borom téere bi moom dane diggante bi fokk quinze jours war na caa dox ñu doog koo tudde salam amma nag bu dee waa ji da ngaa ñëw mu nga jaay ko mbir boo xam ne yow yoroo ko ba pare nga dem di ko wuti islam du nangu loolu islam du nangu loolu abadan fokk kay bu dee ne njaay da cay am da ngeen di wax man ngeen waxaale bu juboo nga dem wëri marchandise mi ba indi ngeen jëflante waaye waxaale bu jubóo mu jox la nga dugal sa poche fas yéene nag dem wëri ci loo xam ne yow amoo ko moomoo ko loolee moo tax mu ne loolu moom kenn du ko jëflante ci wàllu njaay mi ngi noonu ci wàllu googee su ko defee kon bind bi ñi ciy mujj a jël mooy wa ida bita silatan su dee da nga jaay benn marchandise bi samanin muajjal ci prix boo xam ne dañ koy yéexe fala tashtariha bu ko jëndaat mukk bi aqalla minhu ci lu ko gën a néew naqdan ci loo xam ne xaalis booy fay lay doon aw ila ajalin duna al ajali al awal wala ci dig boo xam ne day gën a yées dig ba nga xam ne mooy jëkk bu jëkk ba mooy mooy dig bu jëkk ba ngeen waxante woon wala bi aksara minhu amoo droit yi di ko jënde ila abadi min ajalihi ci lu gën a sori ca la nga xam ne mooy dig ba fekke ne moom loolu da ngeen waxante woon pour mu fay la ko ci dig boo xam ne nii moo gën a jege boobe wa amma ila al ajali nafsihi bu dee nag da nga koo jënd ci dig ba ngeen waxante woon fa zalika kulluhu jais loolee dina dagan wa takuna muqaasa loolee da ngay gis day nekk loo xamee ni nii da ngeen di rakkate ko comme ni mbokk bi wax mooy kenn lorul sa moroom ñu ngi noonu mbokk li ñuy wax fii mooy li ñuy tuddee bay ul ayna bokkoon na lu yonent bi alayhi salaam gënoon a moytuloo xeet bi nee na buñ demee ba axiru zaman nit ñi daañ nekk di jëflante leble mbir ba pare jëndaat ko topp nag yi fàtte jihaad mu ne lii de bu ngeen demee ba def ko yàlla dana indi ci yéen ak toroxtaange du ko teggi lu dul ngeen dellu ci seen diini mbokk jaayi mbir loole da ngay gis bari na ñu koy jëflante lool suñu marché yi benn waaye ngi wóor na la ne xaalis la bëgg yow nga ne ab jullit nga lebal ko cent mille ma war laa fay cent cinquante mille ah loolu moom daa xaraam wala nga cay ragal ab loi kon ñu ne ñuy def mooy frigo bi day deux cent mille lay jar nga lebal ko frigo bi ngeen signé mooy lebal naa ne frigo danga ma ko fay fii ak trois mois gannaaw ba nag nga jëndaat ci moom frigo bi ci cent mille nga jox ko cent mille moom mu nibbi frigo bi génnul place am loolu mbokk da ngay gis lu xaram la lislaam nangu ko am na ñoo xam ne du ñoo koy def directement waaye am na ñu ñuy comploter xam nañ ne ñu bari ña fay ñëw dañuy ñëw ngir leb si waaye li ñuy leb xaalis lañ bëgg soo ñëwee ci magasin bi leb fa frigo télé salon ak yu demee noonu am ku lay xaar ne la sëñ bi mbir bi ndax da nga koo bëgg a wecceeku soo waxee waaw mu jox la daanaka deux tiers yi loolee fekk presque moom borom magasin bi ñoo déggoo loolu lépp mbokk lislaam dafa xaramal loolu moo tax mu ne bu leb la mukk ba pare di ko jëndaat ci loo xam ne moo gën a néew mu ne bokk na ci loolu ba tey mooy nga ne da nga koy jëndaat ci loo xamee ni nii dig ba day gën a sori ci dig bi nga xam ne nii moom la la waa ji nar a fay si masalan waa ji ñëw na nga lebal ko benn frigo nga ne ko dama lebal frigo bi yow nag en fin du mois nga may fay si dañu fay si deux cent mille nga ne ko waaw mais boo ma fay see deux cent mille man frigo bi danaa ko dama koy jëndaat waaye en man koy fay ca deuxième fin du mois loolee ba tey da ngay gis ne frigo ba moom génnul magasin bi waa waa ji ci boppam da ngay gis ne la nga xamee ni nii jox na la ko la nga ka cay tegal islam da dul nangu loolee islam du nangu loolee te moo tax mu ne nga jël ko ci dig boo xam ne nii moo gën a sori mooy waa ji dana la fay si moom dana la fay si lebal nga ko frigo bi masalan jox nga ko cent mille francs téye na ko ci poche am cent mille francs téye nga ko frigo bi mi ngi ci magasin bi moom yóbbu na cent mille bi fin du mois lay war a fay si deux cent mille nga ne ko waaw d'accord waaye nag frigo bi moom bu mu génn place bi man danaa ko jëndaat ci yow après deux mois danaa la fay li nga xam ne moom mooy en deux cent mille encore su ko defee waa ji ci boppam da ngay gis ne lu ci mën a doon dana la fay sib xaalis xaalis boobee jël nga ko te frigo bi moom génnul sa poche lii lépp l'islam dafay bañ lu demee noonu la nga xam ne moom lañ ci mujjoon a jël mu ne nag bu dee ne yow waa ji daa ñëwoon lépp la benn frigo frigo bi nga jox ko ko ba mu demee ba lay fayse ci digg ba mu lay fayse masalan cent mille francs nga ko lebale woon moom mu ñëw digg ba jot na mu lay fayse cent mille nga jëndaat frigo bi ci cent mille su boobaa mu ne loolu moom dana dagan ndax loroo ko loru la mi ngi noonu loroo ko loru la mu ne loolu moom dana doon lu dagan almuhim mbokk ci liñ ciy bëgg a wax rek mooy yàlla daganal la jënd ak jaay mais li yàlla gën a bañ mooy jéem a naxanteeg yàlla ba borom xam-xam yi dañu naan jullit dajeeg mbokk jullitam lebal ko cent mille mu fay ko cent cinquante mille muy li riba bu leer naññ ñu ne moo gën a woyof naxanteeg yàlla te mooy lebal ko frigo bi ci cent cinquante mille mu jaayaat la ko ci cent mille ba pare ngeen jàpp ne yéen nax ngeen yàlla li ngeen def dagan na ñu ne nga joxoon ko xaalis bi mu fay la xaalis bu ëpp moo gën li ñu tudde bay ula ina te mooy jéem a naxante ak la nga xam ne mooy suñu boroom ala kulli xaal mbokk julit yii ay bind la yoo xamee ne nii mi ngi gën a concerné commerçant yi ci benn bari na ci it ay masala yoo xamee ne nii fi jamono toll tey lu ci bëri dépassé na ko la nga xam ne moo ñu ci yóbbu ñu koy jàng mooy téere bi nga xam ne dañu koy topp su ko defee ñi ngi ñaan suñu borom subhanahu wa taala toog giñ toog di jàng lay jur ngërëmam yal na yàlla jagleel ñu ci ngërëmam yal nañu yàlla wërsëgalit ba lu ñuy jënd wala ñu koy jaay yal na yàlla musal ba lenn ci riba di ci dugg wala lenn ci naxante di ci dugg yàlla nañu yàlla laabalal suñu alal laabalal ñu suñu dund wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain waaw waaw alhamdulilah xam na question bi mbokk bi doon laaj ci ki nga xam ne dafa ñëw jënd toolu xaal yi loolee mbokk lu lislaam di saxal la jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam madina dafa ëppoon mooy ay tàndarma daana wax ni bépp tool boo xamee ne nii waa ji dafa ñëw mu jënd ko fekk ne tàndarma yi góoral nañ ko mu ne su boobaa ka nga xam ne moo ko góoral moom mooy moom meññeentama naka noonu itamit tool bi mënees na koo jaayee ci loo xamee ne nii ñax ma wala lañ fa ji mi ngi commencé jóg loolu mooy waa joo xam ne jëmmi tool bi la jaay waaye naka noonu itamit meññeent bu ñu demee ba gis ne mi ngi dëgër ba jaar na yoon boo xam ne ni yaqin am na ci lii dana baax su boobaa loolee mënees na koo jaayante looloo mel na ab toolu dugub suñ demee ba gis ne palpal na ba commencé dëgër daañ nangu ñu jaayante ko mais lu jiitu loolu duñu nangu ñu jaayante ko te loolu it ay atte la yoo xam ne day ñëw ci kanam kon toolu xaal bi daal bu dee dem na ba jaar yoon ba ñu commencé naan fii ak ay temps dañ ko commencé lekk su boobaa dara nekkul ci ñu jaay tool bi gannaaw ba waa ji dëkk witt ba tool bi jeex yow nga doog a jëlaat sa tool wallahu subhanahu wa taala aalam naam bismillah naam day fay bor bi dommage waaw waaw waaw wala kulli xaal bu dee ne ci masala yooyu waxoon nañ ci ci passé mooy lu aju ci ki nga xam ne dafay leb ak ki nga xam ne day jënd teew naam bu dee ne masala boobu borom xam-xam yi dañ ca ixtilaaf doonte ne ne gis nañu ne ñu bari ci ñoom daganal nañ ko mooy waa ji di jaay marchandise am mu am ci ñaari prix ki nga xam ne dafa ñëw di leb mu jaayee ko nii ki ñëw di jaay teew ki ñëw di jënd teew mu jaayee ko nii loolu wax nañ ixtilaaf bi ci amoon ci diggante fuqahaa yi ci daganal ko ak araamal ko loole mi ngi noonu maadaama nag ixtilaaf da ci am mënuñu am yaqin ci ne dafa xaraam mi ngi noonu amma bu dee ne ci question bi mu doon a posé lan nga ci waxoon ci juge bi àtteewa waa ji dafa dafa la yoral bor bi mu la yorelee bor juge bi àtte ko ba pare teg ko nag loo xam ne mooy dommage lor gém la teg ci bor bi loolu de dañuy seet bu dee ne moom avant nga yëg ci fayee ko ba da nga ca investiroon te lam la investiroon moom moo la ko teg su boobaa da ngay gis ne dommage boobee dana dagan nga jël ko masalan waa ji yoroon na la xaalis xaalis boobee lank ne du la ko fay ba tax yow nga jël avocat ba tax nga jël ay démarche loolee nga ca teg dommage boobee day moom bu dee loolu lañ ko laaj lu méngoog loolu dañuy gis ne dana dagan ndax moo la ko teg amma nag bu ñu ko laajee lu ëpp loolu moom amoo droit di ko jël su dee na it amoo benn frais boo ci defit amoo droit di jël lu dul la nga xamee ni mooy lan ka lebaloon mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam naam naam waaw courtier affaire du courtier la doon wax ala kulli xaal courtier bi moom dafa ñëw toog yow nga ñëw di wër kër moom mu ne la ah man kat su ma demee wër wan la kër gu ñuy luye da nga may jox temps su boobaa kay dañuy seet ndax exactement fam la wax kër la goo xam ne effectivement dañ koy luye su dee na moom déplacé na ba foofu wan la kër ga ñuy luye su boobaa la nga xamee ne nii mooy la ngeen signante dañ naan al muslimuna ala shurutihim jullit ñi ci seeni charte lañ tege loolu mi ngi noonu bu dee ni itamit dafa jëflanteeg borom kër ga te mooy man de boo ma indilee client danaa la jox nangam loolee ba tey it bu dee ne daal benn tappale am ami wucca islam dana nangu loolee mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam waaw ala kulli xaal kon waaw waaleykum salaam wa waaw yaakaar naa ni mu ko waxee ñun ñëpp dégg nañ ko noonu mooy ñu def suñu kem talal kàttan xam na masque bi mooy yow sa wàllu bopp lay jëkk a protéger gannaaw ba protéger keneen loolu moom mooy mbir bi ñun ñëpp xam nañ ne c'est très gênant waaye nag ñu def ko ngir place su mbooloo bi moom mooy la nga xam ne moo ko waral loolu yi ñu bàyyi ci xel bu baax doonte ne foog naa da ngeen jéggal imam ndax xam ngeen takk masque du joxe dars ba mënta nekk waaw doonte ne moom gën na sori nit ñi wallahu subhanahu wa taala alam ala kulli xaal daal ñu góorgóorlu di ko takk suñu duggee jàkka ba ba ñuy génn jàkka am na ñu nekk ci yeneen place yoo xam ne ay 4 heures de temps ay 5 heures de temps lañ fay def ci toujours ñu ngi rek seen masque ni ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam ala kulli xaal kon mbokk julit ñu ngi ñaanu suñu borom yal nañu barkeela liñ fi jot a xam yal nañu yokk xam-xam bu ñu xamul woon te nangul ñu àdduna ak alaxira wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain